人生。 Amen. Yeah. وحدثنا يوما إن شاء الله يدور حول مولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم mbokk taalibe yi ginnaaw bi nu mosoo seetaane bu doon yàlla ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul sant Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muriidiina sant soxna Mariama Bousso Jaaratullaahi noonu la ñu nii gàncax gi nuyoo nuyoo lislaam bu ñu di tëj suñu xol di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di am mbégte ci jotaay bii nga xam ne suñu borom Azza wa Jalla danoo may kattan ba mu teewe ko joon daaw bi teewoon sax mu doon may kattan la mu teewaat ko ren te loolu suñu góor a toogay suñu borom la tax. am na ñu bari ñoo xam ne fekke woon nañ ko daaw fekke wuñ ko ñu ko nag moo ñu faax kon mboolem koo xam ne ñëw nga daaw ci borom dogal mënoo ñëw ren wala nga nekk ci biir suuf yàlla saabu yàlla yërëm na di barke si am Bamba Xaadimu Mustafaa di siyaara mboolem daayira bi yëpp bàyyiwul kenn waaye di jaareel ñëw ci ak siyaar suñu jëriñ Cheikh Abdoulaye Cissé di ko siyaara bu baax di siyaara mboolem daayira Hizbut Tarqiyyah wa Tarqiyyah di leen sant di leen gërëm ci taxawaay bi ak itte ji ak pastéef bu mel nii ku xool ji tànk wax dëgg yàlla di nga xam ne yéen di ngeen wax ne taalibe yi Sëñ Tuubaa yu liggéeyal Sëñ Tuubaa la waaye bu bëgg Seex Ahmadu Bamba ngeen waaye bu bëgg Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam moom ngeen ñoo ngi leen di siyaar ak tànk bi wane na ko pastéef bi wane na ko jëf yi wane na ko kon lenn sàmm daal doole leen teewal doole leen gën di siyaar bu baax sama gaay la eh, bu Sika Mbaw nga xam ne soxna Mariama Diop Ndiaye moo ko jiite ànd ak mbooloo ñu topp ci ginnaaw yëpp ñoom itam ñu ay gaynde ay jàmbaar yoo xam ne pas-pas seen bëgg seen Tuubaa seen gëm Cheikh Ahmadou Bamba di liggéey Cheikh Saliou Mbacké doon ay jàmbaar yoo xam ne ñoom di siyaara mboolem kilifa yi teew yëpp góor ak jigéen bàyyi wunu kenn waaye di siyaara raw na sama mbokk Saalum yi nga euh, di fa liggéeyal Cheikh Bamba dëkk bu di boo ñu jiitalee seen daam yi rek di mat noonu di leen lokkeel di leen ñaanal waaw ku ne xam nga ne guddi gi guddi bu rëy la lah, guddi bu yaatu guddi la boo xam ne guddi gën a ko màgg ci lislaam xam ne ne Seydina Muhammad mi nga xam ne moom la tànn tànn nii doon xeerul aalamina di xaatim nabiyyiina wa imaamil mursaliina nga ne mbooleem yonent moo ci gën moo tax ñu bind adduna moo tax ñu bind alaaxira moo tax ñu bind asamaan moo tax ñu bind suuf. moo tax ñu bind daan ko bi ak weeru ak digin yi ñoo ngi ko bind ci mbaax ak Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam mu jëm loo xam ne daanaka suñu borom la borom ngay la borom yërmande la loolu tax suñu borom wax ne ko wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin yow lay Muhammad bu ma la yónnee ci àll moo tax waaye wa maa arsalnaaka illaa kaaffatan linnaasi bashiran wa nadhiiran su ma yónnee ci jaam ñi yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa bàyyi wu ma kenn boole ak na bépp yónni naa la ñoom pour nga leen di laajte te xam-xam bu leen di di leen dëgal ci bay nga leen su di fay ëllëg yow nga jaam bàyyi nga leen di loo xam ne dina tax ñu mën a moytandi ko tere suñu borom yi. kii suñu dafaat gi nag Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu ñi nga xamante ne war nañu sant bu baax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax Cheikh Ahmadou Bamba ñëw adduna bu yonent bi sàkk woon ñëw Cheikh Ahmadou Bamba ci adduna kon mënoon dund ba faatu te kon gën a jot ci Seexul Xadiim te ku ñëw ci adduna fépp dañoo Sëriñ Tuubaa sa mbir na la yàq adduna sa mbir na la yàq alaaka waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam xereñ gi Sëriñ Tuubaa xereñ ak ci ay góor ak daraja ak martaba moo tax. yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax boromam na ko su ma fi jógee jëmm ji daa bëgg mu wut ma ci mbindeef yi muy Cheikh Ahmadou Bamba muy xaadim rasulillah sallallahu taala alayhi wa sallam la dox raama rasulillahi min illahi kaw nii xadimuhu wa abdallahi nga xam ne sell gi yonent bi sell tànn ñu tànn Cheikh Ahmadou Bamba ci mat bi mu mat huwa akmalul wara xalqan wa xulqan taala baati sukkanni makko isikat taɗɗini battat ma atu sayi atni ko ɗe fukki weer ak ñaar si ci ci tagg seydina ci digg yéen fi ne wax naa leen ne mboolem anbiya yi mboolem mursal yi mboolem ñu ngi ñëpp te leen topp dara gën leen téeméer ñoom xam ne lu am mooma ci weerante la yàlla set yëpp muy borom tànk bi di muy moo di borom barrière wu or ba ca Madinatul Muhammad sallallahu wax may nga xam ne suñu borom daf koo may yonent bi alayhi salaatu wasalaam te kenn mu ma suñu daa fekk dajale du ko ci fekk te mboolem nag yi may bu nu mën a am lu mu rëy rëy ba ci kul asmi mu yàgg ci ëpp doole loolu yàlla Moussa Aïssa Ibrahima Nuux Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ñoo doon ci ëpp doole waaye ba defee concours gën a jiitu mooy Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam sëñ Tuubaa ne li kulli min jumlatil axyaar yi martabatun lakinnama ahmadul muxtaaru muxtaaru xam ñun ñëpp kenn ku ne am ngay daraja kenn ku nekk am ngay martaba am ngay secret ci nguur te suñu borom waaye ku leen ëpp secret ëpp leen nguur mooy Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam te Tuubaa min al xawaariqi maa lam yajid li saabiqi wala yafi jilaabiqi min al muhaddaq nga xam ne wax lay wax nee na Yonent bi alayhi su borom dox ay at baax yoo xam ne mos koo jox benn mbindeef ba yàlla bindee asamaan ak suuf ba suñu doon tey lu mu may si dina am ko ci ay leer ak ci daraja sax mu ne la mos ko may benn bi def ma xar baax loolu mu ne la maa la mujjee ci isaani ñu jiitu woon am xar baax yu noonu nii mu ngi ñëw ñu am xar baax yu noonu te yow nag yaa am ku moom doo am xar baax yu noonu. waaye yéen fii kenn dootu ko am pour Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Sëriñ Bamba nee na fàttali lan mu xàtte loolu nag mu ngi ko jëlee mu ngi yoo xam ne yàlla mi nga xamante ne moo jiitu lépp ba dara amagut yàlla mooy am ba dara noppee am yàlla mooy am fan jëm yàlla nañ koy teg nga xam ne mooy des ki nga xam ne te mooy aji ji nga xam ne du faatu mukk ci àdduna bu àdduna dama koy ba sëy lépp ñeex suñu boromam nguuram gi day sax mu ne borom nguur gu sax boobu nag moo dara jaal ak yonentaam may loo xamante ne ni Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam loo xamante ne kenn mësu ko am daanaka inna salaamul ajri alayhi la masjid sajari lahum siqaaqul kamari isil baqa wal xitami daanaka moom yonent bi alayhi salaatu salaam moom lay def ay mbóot yoo xamante ni tame la kon ñi nga xamante ni su borom moo leen sax nga xamante ni rëy nañu gudd nañu tànn nañu yonent bi alayhi salaatu salaam da daan wax ak xeer yi xeer yi du ko wuyu mu naan mu ñu teeri teeri ji ko nii nga xamante ni ci darajaay rasulullahi sallallahu taala wa sallam ci la ko suma kat kat tere mboolem yàlla bind ci kaw suuf barke ji sax dantaan wax Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam waaye alayhi masju sajari moom Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam amoon na ay arbaax yoo xamante ni garab bu mu mos a romb nuyu la garab bi day fay yonent bi ba pare topp ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko teral nga xam yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu mos a di wax lu naaj wi tàng tàng tàng tàng doomu aadama yi di ñàkk garab yi bu doon rombee dañuy sàppaat ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye garab bu mu nuyu garab ba ci boppam nga la jug topp Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam di ko teral ñu alayhi masu sajara doon siqaaqul qamari bisil baqaar wal qadar nga xam ne noonu màkk yi jamono nan ko may yi nga xamante ni moom nga wax ne moo ne ci yow yónni ki ne da wax ne suñu borom asoo jàll sa borom moo la yónni loo bëgg weer wi nga xaral lu ko ñaar boo xaree weer wi ñaar ñu laaj ak nga ñu ne ñaari weer la dana la gën Seydina Muhammad yëkkati loxoom ne ko yow yàlla mu teg ci weer wi weer nekk ñaari xare ak nga bu jaaxle nga ne benn bi mu ngi penku benn bi muy saw noonu ma koy daal di ànd ak jaaxle bu nekk des ci wàllu foo xool itam bu muy weer nga xool saw bu muy weer ñu am ak jaaxle lool mu daal di nekk ak dëkk bu nekk ñu la laajal leen ba xam ñaata weer fa waaye di Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam waaye fan la ko jëlee bisil baqa wal kitami suñu borom nga xamante ni mooy aji des gi te mooy aji diite gi te ay naan te li ñu ñaan di jeex ko saa taw waaye Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam Cheikh Amadou Bamba nee na kaana yuzillul amaam yaraa walaa awaa amaam wa aynuhu kaanat tanaam wa qalbuhu lam yanam Cheikh Amadou Bamba nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam maanaam niir yi daf ko daan teral nga xamante ni keroog ko ko jógee mu ànd ak may sarata jëm maanaam saam di ko remercier nga xamante ni kon naaj wi tàng ko jéggi dara waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam nit ñi mu àndal kenn ku nekk saw ñaq mu ngi siit ci sa catu baaraam suñu baaraam yi tàng waaye yonent salaatu wasalaam di mu bopp ak ndeyam niir yi la suñu yebal mu bàyyi ko asamaan di mu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko beral yonent bi gën ko fu leen tudd ñun ñu topp ko kon ñoom nit ñi ñu ànd ak moom kat ñu waa ci loolu yëngu ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nii da ko topp benn kër fu leen tudd aw nii ñu ànd ak moom nga xam ne keroog moom àggee ca martaba biir bu nga xam ne su borom dafa yebal jaam yëpp ne leen Seydina Muhammad li tax ma bind àdduna ñu ngi ñëw ci yéen li tax ma bind àllaaxira ñu ngi ñëw ci yéen di ngeen bindee ñu ngi ñëw ci yéen dañ ko fa yebal muy jaay ci mboolem marchandise bu mu doon yëpp bu ñëwee la leen ko jënd nga xam ne Seydina Muhammad keroog ba mu ne cëpp ca martaba daf leen si moom dafa yombal jaam yëpp ñu song si la moom def jënd marchandise ba mu def tàkk ba nee na ñi nga xamante ni seen marchandise doo woon yonent bi alayhi salaatu wa salaam nga xam ne ma lay bu mu ñëwee xaj nga ko xool gis bénéfice boo xam ne dégg na dayo laaj ngay sa alal nga gis mu ne li ma gis ci kii day tey dama am na ko yéeme dama ànd ak jaaxle ndax kii naaj bi tey ni mu tàngee ak nit ñaa ngi ñàkk ñu naan sayyidina aw ni mu bàyyi ko asamaan juróom-ñaar diin sayyidina Muhammad bi sallallahu alayhi wa sallam mu set buy nga xam ne fu aw nii laa ko topp ba mu àgg dëkk ba te naa xat si yéen ko dee ba mu àggee mboolem li ñu yëpp jënd nañ ko su la jaay si kaw ma sa laaw da ko ni ñu doon jaay sax maanaam suñu jaay bi dëkk moom donc bi jaay na ba jeexal mënta gis am na ci bëri boo xamante ni maanaam dugg na nag lan di ko li ñu fi def lépp moo dem jaay seen moom si dina ma xam ne sallallahu alayhi kon daanañu suñu am am fu ma saani nii wi daf koy keral waaye yàlla wara awa amam Cheikh Amadou Bamba nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam bu daan dox ni kanam bi di noonu la ginnaaw bi di te moom waru woon nag ay bëtti gannaaw waaye nag su moom la ëpp woon yonent bi alayhi salaatu wa salaam bu daan dox si kanamam jëm ay bëtam fa muy gis la nekk la doon gis la nekk ci ginnaawam kon noonu nga xam ne noonu la ñàkk te umpale dara ci kanamam Muhammad sallallahu alayhi wa nga xam ne ne waaye yu gaana tanaam la suñu tubaab waaye yu gaana tanaam yéen a bëgg moo daan nelaw moom lañ di ko alayhi salaatu wasalaam waaye waxal bu dul ak yéen a xool ba mos ko nelaw saa bu Seydina Muhammad ba nga jàpp ne da ngay soo tuddee ci kër gi yàlla ci dundal mu ngi lay gis boo duggee ci néeg mu ngi lay gis pexe moo namm Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam Cheikh Ahmadou Bamba nee na sa borom may na ko maqaama yooyu mu ne ni daa tajannabu siraat ak gis ni nii masia kazaka tashilu siraat billahi mu walil mu'min nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mu yaakaar tey ak ëllëg nga xamante ni moom nga xam ne moo gën a xam nan bi di salaatu salaam mboolem yàlla ñëpp loolu nga xam ne ñu jaay lu lii yooyu kuntu am ak yu ma dina si saan may nga xam ne man ne su ma nekkee benn suuf di ko liggéey dañu jàpp ne ku ko sori waaye fu ma nekk Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam ma taxali ne ñu naan te daan ko suwaat yonent bi alayhi salaatu wa salaam dañ daaw mooy leen ñi naaw di tom doomu aadama yëpp yonent bi alayhi salaatu wa salaam léegi mosu ko tom léegi mos na laal yonent bi alayhi salaatu wa Sëñ Tuubaa ci lan mu ne an gis ñii maa mu ne boo xoolee mujj yi muy sol moom Seydina Muhammad weñ mus koo laal yaramu boppam Seydina Muhammad weñ mus koo laal ndax su ma daf ko aaral ci ni mboolem ñu def yàlla suñu bi dañ ko normal sallam nga xam ne léegi mus koo tam an zaat tasxiir saa billahi moo lil mu'min nga xam ne képp xam ne amal nga jafe-jafe képp xam ne amal nga ay tiis maanaam guddi Seydina Muhammad alayhi salaatu salaam saa boo ma see jàkkaarloo guddi Seydina Muhammad sa njàqare dana dañ say tiis dana dañ moo tax guddi doon guddi ñaan boo xamante ne guddi taalibe maanaam amit Cheikh na Bamba suñu ne képp kuy ñaan te bëgg mën a say ñaan bëgg mu gaaw na nga ma daaral ci sama sangu sangu adduna ak alaaxira muy Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam nga xam ne képp ku ñaan yàlla jaar ko si naa wax ne su noonu daf koy nangu rawat na bu ci nga xam ne mooy bu ci gàmmo nga xamante ni keroog ba mu gën a àdduna moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leer nga jolli màkkatal mu garama jolli boo xamante ni doomu aadama yi fan nekk ñëpp doo tiit iwaanu kisan sadaa fiha wa xabru fia sankun lahu kartafaa nahu sawan mukarrami atta sarirun kasara la ajli xawli iqtara min muri afdalil wara rabbi alayhi salim xam ne sax dafa am ma ne keroog bu mu gën a àdduna na waa ISRA nga xamante ni seen bële boobu nga xam ne bële bu ci ñoom bële bu ci ñoom ay këram la daan jaamu ay këram dara ba nga xamante ni Seydina Muhammad na àdduna leer ak Seydina Muhammad moo gën a màkk tan këram dugg ISRA wër màkk yëpp leer yi doon leen wax ne jaaxal doomu aadama yëpp ci pale bi màpp pale bi mboolem kër ga nekk ci pale bi ak jaaxal yu def yëpp dañ ko màpp waaw yowaani sanan salawaat yi la waxadu saa sënk loo fatafaax na wasanaan ngërëm ba seen lal ya dafa màpp seen lal ya dafa damuto ndax lan bu dig Seydina Muhammad sallallahu taala wa sallam يعنزل بتنوعين ساوت التي قد حصلت وجلت للفصل قبل الملة وصيرة العدم فعلا الذي بتنوع ولا حدا يوم تقران جاو نور الله نور بدون مويسر يلا دربين في بناء عدم بتنوع ولا دفن بس فسي تحت الفنير فعلا تصور الله نتهي يوم نقول جاو دربين في بناء عدم درب صور وتفقي فهم جاهل يعني أنت اللي هي أنصار يعني أنت اللي هو pour pare isa nga xam ne dara ba pare ba màggee la yaramutoo seen bi nga xam ne moom moo proté sama pare bi lépp dafa màgg dafa dam seen yaaree ko jaamu dafa màgg dafa dam moom ansuraan moomu moo ànd ak jaaxle bu nëpp ànd ak tiis bu ko jaaxal daal di ñu wax le conseil des ministres daal di woote di mu wootee pour ci maanaam lii mbir mi ni ko jaaxle ndax pare bi ni mu tëddee ak li nga xam mooy fondation bi dañ maanaam mu njëkk njëkk napp la ñuy napp mooy dem xëy na dafa nekk napp loolu jaaxal mu anam sabaa moom xam ne moo nekkoon buur Kisaa bu ñu wootee conseil des ministres bay waxtaan ak moom am yeneen ñëw ñu gën a dëkk na ko doon dañoo ànd ak jaaxle mu ne ko doon jaaxle mu ne ko doon suñu dex dañ la jaamu waxtu nekk ne loolu mën a nekk yeneen na ko maanaam sawar woon la jaamu dafa fay ba mel ni maanaam sawar mos faa am léegi nag loolu leen jaaxal dafa loolu lépp ci loolu la amee ñu ngi amee ci leer Seydina Muhammad sallallahu xam ne moo tax ñu bind ak nag alaaxira moo tax ñu bind asamaan ak suuf loolee ba mu amee yoon sa anwaaru sarbu daam sa moom daal de moo day léegi kon am na benn waay boo xamante ne Nu'maan moom la ko doon wax Nu'maan ibn Munzir nga xamante ne su moom may na ko ay may yoo xam ne dégg na dara te mboolem muy xew àdduna bi yàlla may na ko ay may yoo xam ne leen jaaxal dañu yónnee ci moom wax leen lan moo ko waral keroog bu ñu yónnee ci Nu'maan moomu Nu'maan am na boo xamal affaire bi dama da koo dépassé moom Nu'maan ndax ni problème bi marqué def ya seey sama leen ko daw lépp fay ba moom mënut a mënut a xam lan moo war a doon mu yóbbale ci beneen yaa noonu Abdul Munsir al Assaali bi mu ko yóbbale ci moom bu ñëwee nag dafa dañoo jaaxle ndax dañoo jékki-jékki bële bi nga xamante ni moom lañ tabaxan bële ba màpp na bële bi tabaxan jën ña màpp na lan ña màpp na boole bi xëy na fa yëpp màpp na dex ga nga xamante ni moom la doon jaamu dex ga seen na sawara woon doon jaamu sawara woon seen na léegi nag loolu dama ci ñoom aar ngir mu leeral waaye ñoom aar dëkk bi moom mu déplacé na ko mbir moomu jaaxal na ko moo tax ñu ngi jëm nan la doon gëlaat daanaka ne Abdou Moussa moomu jëm na woon loo xamante ne wax na ne ñu ko mos a boo ko gisee dafa mel ni moom maanaam am mbuus la bokkoon mbuus lu mu mel comme ab saabu la la ko ci moom tuddee nga xam ne amul ay tànk yàlla waroon leen am muy mel ne yaram boo xam ne amul lenn amul ay loxo amul dara lenn mbuus dëggal bopp sax te noona nga xam ne dëgg la loo xam ne dëgg wéeroon la nga xam ne xabaar bu ma sa xew bu ñëwee ci Abdou Moussa moom ak Assane moom nga leen leer lu mu wax jëm na tax boo jëlee daal mu ñu tax topp ak bële la waaye yow nit daal ñu mus amul ci wax amul tànk aw dara loolu la ko doy waar ñii ba laaj ko na ko nag ñun def dama jaaxle ndax dama dégg dégg suñu bale ba tam jëm na màkku la Abdul Munsar al Asali Abdul Munsar al Asali moom daal di di téen ab diir mu dugg ci pare bi mu yeesal dex ya fay mooy yoon bi nga xam ne mooy di imaamul mursalina ki tax ñu bind asamaan ki tax ñu bind àdduna ki tax ñu bind suuf mooy Seydina Muhammad ku yaakaar Seydina Muhammad topp Seydina Muhammad yëkkati sa nga nga nga tax war a doon mooy ko su ma jox ak gàttal boo ko jox maanaam pare maanaam leeram boo ñëw moo dugg te pare ba leer boobu moom misal dex leer boobu moo mooy nga xam sawoore ndax leeral na dara ak suñu bopp naan lañu xam ne ñoo xamante ni mooy mucc bi rek yoo xam ne ñëpp daanaka ñun naan dina ñëw mooy yonte jërmale mooy yonte bu tax yàlla bi di jaam yi yonte bi nga xam ne su borom moo gën a mat ñëpp ci ko moo gën a mat ñëpp ñun dem ñëpp raw ñëpp lu war a moom ak la du am asamaan du am suuf du am laay du am kii du am aja du am sawar am lan du boobu moo gën a mat lu boobu mooy Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam bu demee ba nga daal di ànd ak jaaxle ànd ak nit ne dañu mun sax moom nga xam ne moom la ñëpp doon xaar muy Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam noonu moo tax màgg boobu mu màgg Cheikh Ahmad Bamba moo tax mu ne min ha tajamma busra ak gis ñi maasiya te zaaka tasmisia billahi muuril mahdan nee na moom moom Seydina Muhammad jàkk loolu ma sàmm boo tiinee borom dara ba tënga dëkk mu la war sa jàkk la dañ jafe-jafe boo ma sàmm boo tiinee borom dara bu bor ba tënga dëkk mu la war ne ko yàlla suñu borom ñu ne moo ko bind ne ko maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiina yàlla moo jox Seydina Muhammad loo xam ne mosu ko jox yàlla bind ci kaw suuf moo tax suñu jàmbaar ñi Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasuulillaahi sallallaahu taala alayhi wa sallam topp des na gulu daa di wax ne kat moom tey day min haata wasul gulu bii law stadaata alayhi wan fan jaral naamu na nii min nga gis nga taw daa ne Seydina Muhammad sallallaahu taala alayhi wa sallam wax ko xam ne daan ndox tukki yi ci boppam Cheikh na Bamba la tukki yi dañ ko daan topp seen laaj dañ koy ràpp dañ koy ràpp mu mel ni personne mel ni ab place ñu tudd Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko teral waaye bi ñuy ñëw si tëddaat taxee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da doon wax loolu gëlëm yi gëlëm di wax ana loolu mooy nag suñu Habib Ibnu Malik dafa sëf ay gëlëm moom te dugal na gëlëm maanaam li koy dàq te dàq ko dàq ko yeew ñu ngi koy yeew tëdd ci gën fas yéenee dallu fas yéenee nelaw diir bi nag yoon bi ñu daafay dem yooyu daan na ko asalaamaaleykum ya rasulallah suñu yoon bi ne ko aleykum salaam mu ne ko li sa tawat mu ne ko ma day ak teewal laa damaa jur defeeri màkk yi ay doom yu ndaw yoo xam ne naam tool bu ma leen teg xiif nanu ab rëbb nag jàpp na ma te dañ maa dara baax damaa bëgg nag loolu ñoo xam ne yooyu képp jaam yi yooyu xaatimul anbiyaa yi di imaamul mursaliina buñu mbiri asamaan yaa tax bu ñuy julli àdduna yaa tax bu ñuy julli alaata yaa tax man teel ñu damaa bëgg nga dimbali ma nga xettali ma ma ne nampali sama doom yi su ma nampalee sama doom yi ba pare wallaahi ñu danaa ñëwaat nga yeew ma yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga ko nag ndax su ma la yeewee boo demee di nga ñëw doon nga ko wallaahi yaa rasulallah yaa tax ñu bind asamaan yaa tax ñu bind suuf bu dul nga ñëw dara du am du ma la ma sawar mukk baat lay tukkee naa wax nag ba téye ne la tànk mu sell bu ñu ñëwee teel ñu teel ñu taw lu bëree bëri daan ci des sant bi taw donte ne ko ndax boo demee ci ñëwaat mu ne ko woon ndax ñaar sutaay gaaw ndax yonte bi alayhi salaatu wasalaam taxawaay ba métti na nan gaaw nga namp li ngay namp kon gaaw dem ndax yonte bi alayhi salaatu wasalaam taxawaay ba yàgg na dafa ni kër gi ndeysaan doom yaa ngay njëkk a tewee kenn ku nekk kewel gaa ngay nàmpal doom ya ba nu nàmpalee doom ya ba noppi doom ya yaa nga tëb ndeysaan naan ko yaay dawal kewel bi tëb dañu taxee màgga wut waat Seydina Mouhamed alayhi salaatu wasalaam bu ñu ñëwee ba agsi ci Seydina Mouhamed mu ne ko mu ne ko wallaahi yaa rasulallah ñëwoon naa la bu ma la war ñoom ne dana demal na ñoom tulaa di ko jàppaat bu ñu ko jàppee ko di koy yeewaat borom tey ko nga xam ne moo rëddal tël bi ba jàpp ko doon nelaw ndax doole bi mu daal di jóg bu mu jigee seen Seydina Mouhamed ko yow mu jóge ca ndaw ba ñëw tiiloo te ne ko asalaamualeykum mu ne ko waaleykum salaam ya rasulallah mu ne ko lu doon sa aajo ndax am aajo ci tool gi yow yaa doon tëb yàlla Seydina Muhammad ne ko waaw waaw tool gi de am na aajo ci moom kooku lépp boobu daal tey jëppal naa la tool gi may naa bëri naa teew teew bi loolu tamit daal di bàyyi teew gi ne ko benn waa kat sa tool nga nga nàmpale bu ñu gëtee moom nga sa bopp teew daa ngay daw wut si tool nga doo ñaan ko song yaay da ngaa jël si mu ne leen jël si naa de ndax ki tam lay gën ki tam lay rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam bu ma leen borom raab oo leen ko def mën na mën a wax ba mu leen mën a def tuman mu bay nàmp tuman moo tax si ànd nàmp di ko wax naan su ne ak taf ñoo taam lii kat li ak dalil anaan te taabu sëggin bi dara moo xam ne sa mu tëral كلام في هذا المسجد هل خليل جسعا قد عطى في المعجزات المكرمه وتابع الى الله رحم البت الله دار ري بنت ري رك جات بو يطلع سام رم من بو يوم جنت جال المتي بو بدك ري بمتي بدك بعد روح يلا نقول يا بني بني سيدنا محمد جيت تهم بدك رأ دان te nattu na nattu na lu nga daan nattuwaat nattu na ndox muy wax la noonu nattu na ndox yi dina maanaam yaa dina si sabata danaa dañu tëdd rek xale yi ba gis xel xat xataa fii mu am isaat lu mu ko am yoo xam ne loolu lépp su borom da koy jox Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam doole ji mu am ak kattan ji mu am moo tax Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam su doon jox ko kattan kon jàng ji mooy lan mooy li ñuy doy yonte bi alayhi salaatu wasalaam góor ñi tedd jooju jikkoom bu mag jooju ndax islam diine yërmande la islam diine sell la bu nekk sa xol sa xol day dëgër waaye bu nekkee sa xol xol bi day mooy xam nga boo xoolee boxeur boobu ah, Mike Tyson noonu wax nga kas amoon na Ali gis nga jamono boobu nga xam ne li nga am ay victoire yu bëri boobu dugg ci islam donc bu ñu tuddee taxawul ndax ba ma dugg ci islam bu ma mënaan a dund du ko dóor day mel ni gisuma doomu aadama boobu sama xel bi dafa dëgër ba mel ni aw xeer nga xamante ni gisuma la doomu aadama lay dóor poids bi sama doom am dix saa yi mu am dégg nga daal ba ko mu dal da ngay daanu waaye islam sell bu mu sell ak leer yi nekk ci biir islam moo tax ba ma duggee ci islam force de frappe boo gën a am amatuma ko ndax su ma tiimee doomu aadama ba di ko bëgg a dóor yërmande dugg sa biir xol islam islam toogoon ma damaa ñëw ci ëllëg yóbbu ma ci ak leer moo tax amatuma doole dama amoon ngir mën a béy sa doomu aadama ndax yëg nga ne islam du ko sant lu kon kon ñu nag léegi ne laay islam ba man ñëpp tay xayral islam a dina bële na ko bële niru waxoo fi ànd ak moom passé kon nag guddi gi moom mooy way Seydina Muhammad rek bu ko man na nga yor sa kurus sallallahu ala muhammadin mooy ki gën a gàtt te gën a gaaw ba pare doole lool ndax même bu ñu nee la bu dul ci man benn yoon danaa julli jaww fukki yoon ku dil ci man fukki yoon danaa julli jaww téeméer yoon ku dil ci man téeméer yoon mag daf dox sa diggante ak sawar ginnaaw nag nee na ku dil ci man benn yoon mooy julli jaww fukk nga julli ci man fukk maa def jaww téeméer te sallallahu ala muhammadin ku ne am na ko moo gën a gàtt te am doole man nga cee def tey bi ci ñaar ñu fu ne su ko defee lépp di ñu julli jaww day mat jaww kon rafetal suñu xol rafetal suñu jëf te xool yoon bi alayhi salaatu wasalaam bu ne teg na ko lu ne def nañ ko ko lu ne wax nañ ko ko fu ne jaar nañ ko ko alxuraan nag wala ku dafa san ali sa xan lan sabu min xaw yi soo doon doon ko bu bon gaaroon mer du ma mën a ko saako ko jànni ko man moo la bi lu ne war tey jàkka yi di biir ashadu an laa ilaha illa allah wa ashadu anna muhammadan rasulullah kii mooy sayyidina Muhammad kii mooy xayrul aalamiina kii mooy imaamul mursaliina kon xam naa li duuf ci nag yi xajul ci kaw tëdd yi dox bi yaatu na te li ci des bëri na te mboolem doomu aadama bi kenn ku nekk yéene nga jëlee kon ñoo ngi daal ñamal suñu dant foofu di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal teewal di leen ñaanal wërsëg di leen ñaanal wér di leen ñaanal ak taal bu sax dàq ak xéewal yu sax dàq di bu jaay Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Moustapha ak ko fi islam sayyidina Omar Lom wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh